sama Samagal TV mbokk internet ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen bal wax di bal wax di wax ñu ngi fii ci Saladam 2023 fii Cissés tey nag ma taxaw fi nga xam ne ni waa Tivaouane ñoo fi kilifa ñu lay ziar bi. pas mal la. Pape Pas mal Malick Guèye. pas mal Guèye ah. On est président commission communication pour Reptel. pour uh-huh. Tivaouane. Machala. Ah waaw ànd secrétaire général. ok oui, muy Serigne Mansour aussi. ok boole ci aussi. nous uh-huh. yabal ko exposé. Ah. pour jëmmal Reptel. Ah. invitation Reptel bi nga xam ne FENAFO joxe na ko. waaw ñu jox ko mu ñëw jëmmal Reptel. macha allah fii ci bi quoi ah daa kon daal tey. Ah. Euh, comme comme ni ngeen ko defee woon Touba rek ab kenn muy représenté Tivaouane. Hmm. tey sëñ Mansour ngeen jël. macha allah waaw noonu ngeen ko defee noonu ngeen ko defee. noonu noonu noonu rafet na. waaw allah tey euh, ngeen ñëw tey yéen saladam ñaata yoon ngeen ñëw saladam est ak noonu gisee saladam bi. waaw saladam moom

jumaa jaa ngi nii dangay ngay julli lépp nice quoi. non man kay dama mujjee wax sax est pour mu def émission. parce que sama sama sama yaa ngi métti. non wax dëgg ah, mais nag ngeen ñëw indi bergerie euh, ah, salaam ak satar salaam ak satar. waaw sëñ Mansour si macha allah sëñ Mansour. ah sëñ Mansour tey euh, gars yi yow lañ jabal waaye juumuñu de ndax euh, sama champion bi nga indi dama cee kontaan. si ñu ngi lay jaar. ziar bu wér di nuyu waa Samagal TV yëpp. Uh-huh. di nuyu aussi les internautes. Uh-huh. via Samagal. Uh-huh. di suñu maam ju baax ji ñu taxawal mi Pape Malick Gueye. macha allah di chargé euh, de la communication. Uh-huh. de l' association REDP regroupement des éleveurs de Tivaouane. pour uh-huh. la euh, baax. Uh-huh. waaw gars yi daal seen ndongo yi lañ yebal tey. ah, ah. waaw macha allah <laughs> ah ñëw ngeen ah mais kon euh, salaam ak salaam nag nga nga indil nekk tey añoo boo xam ne. Mm-hmm. génnoon Tivaouane. Mm-hmm. classé deuxième ou troisième. deuxième. tey nga indi ko loo loo ak kan nga indi kan ak kan nga indi. waaw tey ñu ngi indi Dida comme ni nga ko waxee. Uh-huh. mu nekk euh, jeune mâle. Uh-huh. nekk vice champion. Uh-huh. Euh, foire Red Pel. à l'âge de sept mois. booba tey nag muy doo a génnaat. ok dañ ko xawoon a xawoon a laax tuuti. moom muy doomu Mbaye Diagne Sire. ok junior Mbaye Diagne junior Mbaye Diagne Cissé jur. Mbaye Diagne amitié amitié Soubeyrou. yaayam di dom Arona. Arona procureur procureur magistrat. mu don ligne Soubeyrou ak ligne magistrat bi. ok indi indiwaat nañ tamen Bébé Awa. ok muy femelle bi. waaw nga xamantene mom moom. yaayam doom Picasso la moom ñul mom ci kaw waaw. waaw dom Picasso la. yaay ji doom Picasso la waaw. mom muy dom mohsin junior. ok Moussine junior ko wax nak xam mohsin machallah machallah ñu di tamit añal bi mi nga xamante ne moom di doomu Abraar. borom corne yu weex yooyu. borom weex yi. doomu Abraar. Abraar design yow la juddoo. waa si man la juddoo. Abraar jur ko. moom ñaata mois. moom instant cinq mois lay doog a tool waaw. ñu di tamit. Euh, ten nii boobu laa curoon bi. waaw ten nii bi laa cur. kii <laughs> dafa rafet moom mooy Kanto. Eh. di doomu Latir Cissé. Kantoom. Kantoom mooy lan. Ah, di doomu Latir Cissé. Latir di doom Roi Bachir. ok yaay ji di doomu Teranga. ah yaa ngi may doog a wax waaw yaay ji doomu Teranga. bu dee ba Saalum bi la jël ak ah, Teranga bi. ak Teranga ba waaw ah, waaw moom ñaata weer. Euh, moom mu si 10 mois. tëbagul. Euh, tëbu na tëbu na. ok ñu jël tamit euh, ki nga xam mooy My Love. di doom si Boy Ndour. ok di doomu am Amdan di doomu Saalum Saalum. macha allah yaayam di 100 pour cent Gélawar. ok waaw macha allah tey loolu nga daal yooyu la ñu indi ñu doon ñoom ñëpp. ak ak Dida mu doon jeune mal. Ah. waaw comme dañuy ñëw pour kii si. présenté wu rek xale la quoi. waaw ñuy ne ay xale daal ay xale ngeen di yow ay xale la ñuy macha allah mu nekk une très belle exposition. Dida mu toll si ñaata weer. moom mu ngi doog a dugg si 15 mois. 15 mois macha allah. waaw ana ana ana papa nu mu tuddee sax. Mbaye Diagne Mbaye Diagne nan nga nan nga def ci li nga doon édité. Dida nga mujjee teg ci tëng yow wala. <laughs> non papa ji moo tegu si tëng yi. ah papa ji ah. papa ji moo leen muy teg si tëng yi. mais dinaa moom def na aussi dugal nañ beneen daanaan xam naa fi lañ koy jàllalee gars yi gisaguñ. mooy kan muy doom buur Saalum. anamu di Boy mu ngi Tiwaawan mu ngi Tiwaawan <laughs> ah doom Buur Saalum ñëw na. doom Buur Saalum ñëw na. Ah, sëñ bi kontaan nañ jàppale leen si liggéey bi incha allah. macha allah ah kontaan nañ. waaw incha allah kontaan nañ eh, exposition bi rafet na waa Tiwaawan Reptel. Euh, chaque jour euh. rek. waaw aja ci Reptel. waaw di wax ko monde élevage rek. ni Reptel jàpp na foire am. waaw euh, du 29 décembre au 7 janvier 2024. allah ñu bàyyi ko xel nag di xam ne. Ah, mu teel a leer boo xam ne daal waaw. gars yi xel gars yi bàyyi xel parce que am na lu ñu waaw bëgg na noo def lu raw liñ fi jóge woon incha allah rabi di ko di ko yëgal monde élevage yëpp rek

29 83 nekk Tiwaawoon si côté xabdu Serigne Cheikh moo xabdu Serigne Cheikh même pas 100 mètres. macha allah kontaan naa.